nee na loolu mooy nu yeesal sunu cant sunu diggante sunu borom moom sunu sunu borom mi nu booleeg sëriñ Touba di sant sëriñ bi moom mi sunu lépp tey ak ëllëg nee na di sant bu baax a baax a baax a baax ci tawfeex jiinu sunu boroom defal tawfeex jiinu sunu borom defal muy amunu genn jublu gudul sëriñ bi ndax jublu sëriñ bi mooy xasdu li wàccillaahi gën nag bu baax baax a baax ci tawfeex ji nu am muy ndollan lu rëy muy bokki taalibe yi nga xam ne feeñal nañu seen bopp ci tawfeex ju rëy ji ñu am mooy ñileen ko Cheikh Saaleh tudde muy xees bu tarqiya muy kuréel bu mag bi nga xam ne kuréelu bu yéege la ne lim ko waxe woon ci jataay bu njëkk ba ca xisbu talqiya mu ne li mu waxoon mooy ni ko alquran waxe rek laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwimin summa raddadnaahu asfala saafilin ginnaaw sun boroom dafa bind doomu aadama mu mat sëkk waaye ci coobareem ak xerañam ñi nga xam ne daa mel na ñoom seen bët ci suuf rek lay xool nee na ñooñu dañuy doon ñi gën a suufe ñi nga xam ne nag seeni bët ci kaw rek lañ koy xool ñooñu ñooy ñi nga xam ne dañuy yéeg rek jëm kaw te dara du leen fakk lu dul ngërëmul yàlla ak àjjana rek nee na Cheikh Saalix ci déggam akuk xamam akuk settantalam moo tax mu tuddi nag sunu bokk yi xisbu tarqiya nee na kon ñoom mel na ne kaw rek moo leen tax a jóg gën a jëm kaw rek ni ko Seex Saaliwu junje woon nee na loolu feeñ na ci seenu jublu ndax sëriñ bi rekk mooy seenu jublu nee jublu gi nag mooy waxtu wu ne ñu yeesal seenu jaayante nee duñ koy yemale ci seen bopp dañ koy tàmbalee ci njaboot gi nga xam ne moo na ci suuf bëgg leen a ci jublu gi nee na loolu moo di lii nu njëkk a gis sun daje bu baax bii muy gone yu tuuti yi tabaarakallaahu aaye jii ñu fi tare mooy cosaanul lépp nee na foofa la jaayante tàmbalee jaay seeni bakkan ak seeni alal te jaay wuñ ko lenn lu dul amee ko ngërëmul yàlla nee ndax dëgg la àjjana sax mooy seen waaye àjjana la muy neex neex ngërëmul yàlla moo ko dàq nee kon nag noo ngi gën a sant suñu borom bu baax a baax a baax ci tawfeex ju nu am tawfeex joo xam suñu mbokk yii nee na muy tawfeex xam ne noonu ko am te mu jóge ci suñu mbokk yii ñoom ñi nga xam ne dañoo yeesal jaayante gu njëkk ga wan ginnaaw lépp jublu sëriñ bi te jublu sëriñ bi mooy jublu yàlla te mooy xasdu li wàcci laa lii nga xam ne suñ bokk Hizbut Tarqiyyah wane nañ ko nee na du dara lu dul yeesal ak jaayant rek ni ko suñ bokki Hizbu Tarqiyyah dafe woon ca fan yële nee na Hizbu Tarqiyyah nag benn kuréel rek lay doon ndax ñoo bokk jublu ñoo bokkit fu ñu jëm ñoo bokkit lu ñu bëgg ñoo bokkit seenu jaayante muy jublu sëriñ bi nee na kon loolu dara mënta dox ci diggante bi ginnaaw ñoo bokk bëgg bokk jublu bokk fu ñu jëm loolu dara da dootul mën a dox ci diggante bi ne dëgg la yàlla sunu boroom moo bind teral nu nee na sunu boroom bam mu nu bindee teral nu ba bind wala xadd karam naa ba noppi daawal butiku nag dinu teg ay nattu ngir bëgg rek nu xam sunu bopp nu gën a xam suñu bopp ba gën a wéral sunu jublu bañ a am genn jublu gudul yàlla kon nee na ni mu ko waxee woon sànq rek xisbu tarqiya tawfeex ju la ci noonu ñun njabootu sëñ Tuubaa gépp nag. ndax nee na ab soññ rek la ci noonu Hizbut Tarqiyyah ab soññ la ci njabootu sëñ Tuubaa gépp ndax nu gën a mën a àndandoo rek. di jublu sëriñ bi rek. di ko jéem a xam waxtu wu ne. ndax nu gën koo mën a dund nee na kon bokk yii bokk ci Hizbut Tarqiyyah seen taxawaay bi nee loolu rekk la wone nee loolu moo waral sëñ Yuusu Jóob mais nee moo ko jox ndigal ngir mu ñëw teewe jataay bii nee lépp rek ñu gën a xam ne ñoo bokk lépp te nag dara mënta dox ci diggante bi doyadik doomu aadama nag faw muy feeñ ci noonu seytaane itam du toqi du tàyyi waaye ci tawféexi sëriñ bi doyee doomu aadama mënta gàllankoor nituk sëriñ bi seytaane it mënu ca dara nee na loolu nag nee na alhamdulilah rabbil alamin ni mu ko waxee woon rek Hizbut Tarqiyyah tawfeex la ci nun ñun njabootu Sëriñ Tuuba ab soññ rekk la bu ci nun ndax la ca am solo mooy wan gannaaw lépp mooy wan gannaaw lépp jublu sëriñ bi rek neen àdduna bari na gàllankoor lool waaye jóg jublu sëriñ bi muy dëgg ci yow ne dara dootul la mën a gàllankoor nag nee na tegtal bi nag mooy nii ngeen ko defe ak fi ngeen toll ci àdduna mën a won ginnaaw àdduna mën a won ginnaaw àdduna te muy dëgg ci yéen teewu leen a ànd ak seenum xel teewu leen a ànd ak seenum nite loolu lépp loolu lépp yàlla taw feexal leen teraangay doomu aadama ba ngeen mën a jël teraangay doomu aadama delloo ko seen borom delloo ko seen borom ndax doomu aadama suñu borom teral na ko ba noppi te moo ko wax mu ne waaye loolu fokk doomu aadama ji xam ne boroomam teral na ko ba noppi teraanga jooju mu wëlbati ko def ko ak jaamu yàlla ne loolu nag ko sëriñ bi mooy nañ ko mën a xame doomu aadama ju wëlbatiku teraanga ji ko sunu borom jox sunu borom gënal ko lépp mu fab teraanga jooja delloo ko lépp doyloo ko nee loolu sëriñ bi moo ko def bëgg dund kon nag ku bëgg a dund sëriñ bi. il faut nga jaay sa àdduna jënde ko àlaxira kem kattan kem kattan nee loolu moo tax yéen Hizbut Tarqiyyah ngeen am tawfeex ju rëy nga xam ne mënta ñàkk nga xam ne mënta ñàkk muy jublu sëriñ bi te yàlla rekk tax muy dëgg ci nun wan ginnaaw àdduna daray àdduna bañati noo saf nee na loolu ci jublu sëriñ bi rekk lañu ko mën a amee mooy ki nga xam ne bëggul dara lu dul boromam ma ma nekk ci dara lu dul nekk ci boromam nee na dëgg la sax waaye nag loolu sëriñ bi da ko àndaale waaye loolu moo tax nag ak dundam mu feeñal ca loola dox ko ba mu jeex tàkk lim fi nekk ci àdduna sunu borom rekk la fi nekkal masu feetal dara moom sëriñ bi lu dul boroomam xanaa jaamu boroomam ak liggéeyal ko liggéeyal ko ci jaamam ñii ndax fi ñu ko gisee ba fi ñu ko noppee gisee gindi nit ñi ak wommat leen rekk la fi nekke woon jëme leen ci seen borom kon loolu sëñ bi ba mu feeñee ba léegi ñu bari ci jaam ñi fëx nañ wuti ko moom sëriñ bi booba ba léegi nag nee na kon nag la ca des jëkkante ak rawante rek moo ci des ku gën a wan ginnaaw sa lépp wan ginnaaw àdduna ak li biiram talatoo sa bopp talatoo àdduna jublu sëriñ bi nee foofu la rawaate bi nekk nee na nag mi ngi fi te du fi jóg nee na kon dara desu ci nag njëkkante ak rawante rekk la bu ñu seetloo tuuti daanu gën a xam ña nekk ca loola eh, dëgg la sax ñépp ca nekk waaye nag rawaate moom dafay am nag nee na kon lii lépp rawaate rek la rawante rek la ci rawante bi rek la feeñ kon ci rawante boobu ci la xisbu taraqiya feeñee nee na kon nag yéen bokk yi yéen bokk Hizbut Tarqiyyah nee na kon wax ji kenn jiituwu leen ji nee na ndax da ngeen a dal sunu xel xam na ne sax ngeen njëkkante ci sóobu yoon wa nee na loolu amul lenn lu nu ciy def lu dul kañ leen rek nee na ca njaal benn nga nee daa mbokkam moom doon waxal nee na muy waxtaan ak mbokkam ma ci yéen ci Hizbut Tarqiyyah nee na ba waxtaan la soree ba mu jeex nee na mu ne ko diw li ma ci xam de moo di buñ leen mënta jiitu itam fu fu ñu toll nu tolloo fa ak ñoom nee na kon wax booba gàtt na waaye mën na ca xame lépp nee na man ngeen ci gën a xame it seen bopp nee na am ngeen tawfeex ju waaye lu ngeen ko gën a xam nag dox doxin bi gën a woyof gën a yomb day taxit mu gën a gaaw nee na kon mi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare nee na amul dara lu muy wax di ko ci dolli lu dul na ngeen xam ne xam nan si ngeen toll nee na mi ngi leen di seeral rekk ne mi gën a yeesal ak jaayanteem gën koo ànd ak yeen nee na kon alhamdulilah rabbil alamin nan góorgóorlu bu baax rek nee wax ji moom mënta ñàkk waaye daanaka jërul baril waaye li mu laaj daal nee sóobu li mu laaj mooy ak tàlladi rek neena na buntal dara lu dul suñu borom bu ci boole dara loolu tal alaxira kon talaati gi rek moo ci am solo ci gàttal rek nan góorgóorlu bu baax gën a sóobu bu baax a baax nee na bun tal dara itam bun talul dara rek dara du mën a dog ak li ndog yi bari bari bantalul dara loolu sëriñ bi dara mun noo dog kon nag noo ngi dollee gën a sant suñ boroom bu baax moom mi sëriñ bi sant sëriñ bu baax moom mi nu fàggul lépp lii lépp fàggute bu sëriñ bi rek la nee na nan ko xam bu baax nag te gën a feddli laxasaay yi ginnaaw ban gën a yeesal jaayante yi nee la rek moo ci am solo kon jërë ngeen jëf nee na gis na taxawaay bi baax nee nii rek la ko bëggee nee na xam na itam yitte ji nee na gis na ko bu baax a baax nee na bi itam dañ koo gën a xam rek waaye moom rek la xam ci yéen kon nan góor bu baax a baax rek ni ngeen ko defee tàmbalee ko ci gone yi tuuti yi ba li nekk ci yéen ngeen digal ko ci biir gone yi nee loolu liggéey bu rëy la nee na liggéey bu am njariñ la nee loolu yéen a ngi ci waaye jëme leen ko kanam rek ndax du dara lu sant yàlla ci li nu yàlla defal suñu digg ak sëriñ bi te yéene ko nag kun ko bokkal yéene ko nag ko jullit war nañ koo yéene ku ko bokkal war koo yéene ko dib jullit nee na kon nii rekk la demee ite ji jëpp taxawaay bi nee noonu rek la dem noonu rek la ne feet li laxasaay rek yeesalu jaayante rek kon gën a fëx rek gën a suubu yoon wa rek bañ a geesu bañ a taxaw nee na mas naa wax bu jëkk ca Hizbu Tarqiyyah ne daa waxoon ne yoonu yàlla danginu la laaj nee na danginu nag mooy wéy rek bañ a wut àndandoo waaye loolu kenn ku ne loolu moo war a nekk ci yow kenn ku ne loolu moo war a nekk ci yow mooy tax nag dana nirul ne sax da nga wéet waaye déedéet doo wéet ndax boo sóoboo yoon wi dongali sa laxasaay bu baax dongali sa laxasaay waaye nag doo wéet am na ñu mel na yow ñu mel na yow ñu jóg ni yow nañ sa di jéem a dab am na ñoo xam ne it ñu ngi sawet am na ñoo xam ne it ñu ngi sawet jéem a dog yoon wi ànd ak yow jéem a dog yoon wi ànd ak yow am na itam ñoo xam ne am na itam ñoo xam ne ñu nga jiitu ci sa kanam moo tax nag loolu moo tax nag doo wéet waaye nag du la tee nag danginu te dem rek nee na kon noonu rek la rek la rek cant bu rëy rëy rëy moo fi nekk ak xel mu dal mu ne ba leen dana bokk ci ay ñaanam ci xeetu ñaanin wi bokk na ci ñaan yàlla na yàlla baral seen i kenn nee na loolu rek lañ koy tëjee nee na jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf lépp leer na jot na sëkk mat na sëkk léegi bu ñu teewloo bu kenn jóg kon na ñëpp tàllal sëriñ bi ñaan te bu ñaan bu ñëpp ne kenn ku nekk toog fi nga toog bu kenn jóg kon na ñëpp maye ñi maye yoon wi te na ñëpp toog bu kenn jug na ñëpp toog